moom euh, wàll li ci des nag maa ngi koy junj euh, xaw ma woon sax ne dinañ ma interviewé waaye ma tënk ko ci ñaari minute dama bëgg a wax ne euh, man Abdel Aziz Sy doomu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum sëtu Serigne Babacar Sy sëtaatu Alaaji Malick Sy simple citoyen ndongo daara bu ñàkk solo la waaye man jox naa sama baat opposition malheureusement nag dama xamul député man duma leen kàcc waaw man xaw ma député pur xaw ma député beneen yi député génération yu bees yi miinu ma leen te sëñ Moussa yàlla dafa dogal li may woowee moo grand ami yëpp euh, mësuñu toog ba wax waxi pur waxi daayira bi yàlla yeneen bi daayira bi mbiru njaboot jaax na bokk laaje mu wax la ko mbiru pur duñ ko waxtaan Euh, waaye ma gis ne rek réew mi dafa toll ci xat-xat goo xam ne ñun i ñaanuñu euh, ñi nekk suñu ci euh, nguur gi suñuy rakk lañ suñuy doom lañu ñoo leen féete mag nag féete leen ci wàllu njëkk leen dugg ci mbiru politique man politique ma waaye nag damay jël sama responsabilité fii la fi Abdou Diouf jàppoon na sëñ Moussa na Senghor jàppee woon seriñ Cheikh Euh, kon foog ñu jël suñu responsable Serigne Babacar Sy da daan woote Serigne Fallou mbake euh, daan woote te maa ngi ko koy wax léegi mu ne ko xalifa bi jiitu ci lislaam muy Seydina Aboubacar ci wot la tooge mën na daani ki junneeg juróomi téeméeri at ndax bi muhaajiroon yi ansaar yi bañ a euh, xeex reyante dañu ne nañ wote ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ci mbooloo ku ko war a wuutu donte nee nañ wax na ko benn soxnaam moo ci woote la Seydina Aboubacar Sadiq toogee gannaaw coobare yàlla eh, kon mën nañu ne woote du tubaab yee nuñ ko jàngal nun jullit yi ñu ngi koy def boobu yàgg na eh, man jox naa sama kaddu opposition ndax lii la dis du ma sëriñ du ma wali waaye depuis plus de trente ans fanweeri at lu ma leen wax ci kàttanu yàlla dis nañu ko ndax man dama jaxasoog nit ñi mooy eh, nguur gi fi ne iñaane wuñ leen ay sénégalais lañu ay doomu réew mi lañ suñuy rakk lañ suñuy euh, euh, jarbaat ñenn ñi waaye dama dis ci ñoom ñaar te dinaa ko wax xam naa dinañ ma mere sax waaye dinaa ko wax ndax ñoom it dañu ŋàñña Macky Sall ba ba toog waaye ñun ñoo lee ñun la Macky la gën a xeex ka ñoom dañ Macky Sall buñ la ne la mu daj pour euh, sàkkal ñu pexe Serigne Moustapha daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat ak ñun ñi bu ñu leen ko waxoon ngeen ne du dëgg waaye ci kàttanu yàlla yàlla jàppale ñu rek ba moom dem na ñun ñi ngi fi comme na ko Abdou defoo nag ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye ñi fi ne i leen waaye ñaar dama ko dis ci ñoom benn bi mooy li arab di wax kibru suffisance xam naa samay kàddu nag du neex xam naa xaw ma ndax kaddu yu mën a génn ci télévision la mais je dis mon opinion de citoyen et ça nangage que moi ça nangage ni les grandes personnalités qui sont à côté de moi ni Serigne Moustapha sama opinion citoyen laa wax man Abdoul Aziz Sy simple citoyen maa ko wax am nañu seen qualité waaye nag ñaar dama ko gis benn suffisance dañu yëg seen bopp te nag euh, ñi fi ne leen magul ñoom maguñu bu dee jàng lu ñu jàng dañuy raw ci côté bii rek ñu raw leen ca côté bële te bu dee mbiru politique bii ñu soobu ñun bañ cay soobu ñenn ci ñoom ñi ngi naan yaay jëndal ma tàngal wala juddooguñ kon loolu mët na bàyyi xel waaw beneen problème bi mooy dama dis ci ñoom euh, inexpérience te réew mu mel ni Sénégal Macky yàq na ko yàq goo xam ne bu nu ci caaxaanee rek euh, ku amul expérience bu ko téyee ci futi lay jëm ñetteel bi mooy dama dis mandarga yoo xam ne euh, gënul cib réew ndax dama jékki-jékki man du ma leen seetaan ñoom télé sama principle man bu ma gëmul politicien rek du ma ko seetaan Macky balaa muy daanu seetaanantu ma mais dama gis mandarga yu xaw a doy waar ñu naan dañuy invité ci Sénégal ay espèce su politiciens yoo xam ne ay lobby ngeen baal ma waaye ci baat bi lay aw ndax jàngalekat laa woon ay lobby góor jigéen a leen fi ñoo leen di fi yónneeg yooyu mais du démocratie moo teg cinquante quatre pour cent ñi ci pale bi mais démocratie moo woote lu tere góor jigéen senegal kon lu ñu fi woowee ay góor jigéen ay lobby góor jigéen yi wak franc-maçon ñun taluñu leen sax suñu dépense ak suñu jaamu yàlla lañu ñu tal waaye nag duñu toog suñu réew la feder ba daan def ak ñeneen ñi ñu ñëw nangu ñun eh, nangu ko suñuy loxo def lu leen neex kon dara moo ci mën a ne man maa ngi woo Sénégalais sama ci sama turu bopp koot donte ñàkk naa sol solo ñu wooteel opposition mais la bonne opposition ndax bu ñu wootewul la bonne opposition mën nañu jox ay député euh, ma euh, ndombol tànk yoo xam ne nguur gi bu ñu demee ba war a former assemblée dañu leen di am nu ñu leen di récupérer noonu la leen Macky naxee woon ba toogaat ci élection yële passé waaye élection yële bu euh, opposition manko woon kon Macky du du tëye kon ngeen voté pour la bonne opposition opposant yi nag li may leen di digal mooy ñu bañ wut nguur ngir nguuru te lu ñuy def nañ ca jiital ragal yàlla man daal jox naa sama kàddu opposition waaw kon loolu laa amoon lu may wax euh, xam naa dinañ ma ñaan loo sax waaye man taalibe la xaw lu tax ñu may ñaan loo waaye nag comme sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan mooy gànnaayu julit kon ku ne mën na ñaan waaye euh, bare na lu ma ci expliquer wax bu baree soof te ñoom ñi ngi ci émission euh, maa ngi koy wax sama kii bi waxtaan boo leen ci bëgg a xam rek Euh, def nañ ko ci xale yi def nañ yenn yi ci YouTube foog na def Serigne Abdel Aziz Sy Al Maktoum man xamul sax ñu naan ma Serigne ndax man Abdel Aziz Sy Al Insani yàlla ñu xam naa Serigne Cheikh Atane wala wa ila page bi mu kii bi page Facebook bi euh, suñu samay waxtaan mi ngi ci muy forum Tivaouane développement ah développement en anglais mais ci waxtaan yi wolof la li ci kon euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu def fatiha ak salaatu fatihi loolu foog naa lu mu euh, euh, fajul rek waaw ngeen xam ne mënatu ko faj waa kañ wuyu ko bu dee farat kon baax da audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahimi alhamdulillahi rabbil alamina rahmani irrahimi maliki yawmi ddiini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 wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbi